alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xathin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur calayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arrahimin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa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 di nuyu itam jàngalekati alxuraan yi ñoo ngi nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi di bég bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun jotaay bi def ko muy seen jotaayu wetal waaye def ko itam muy suñ jotaayu naafila yàlla nañ ci dajee ngërëmul borom bi subxanahu wa taala ñoo ngi leen di bégee bu baax di bégee soppe yépp te di leen baalu àq nag di leen ndokkeelaat ci weeru koor gi ñu nekk ci weer wu tedd wii ci weeru bari wiw wii nga xamante ne mi ngi toll ci di jeex yal nañ ci am ngërëmul suñ borom yal nañu nangul suñu koor yal nañu nangul suñuy julli yal nañu nangul suñ njàngum alquran yal nañu nangul suñuy salaatu ala nabi te nangul ñu suñuy istixfaar ñoo ngi ñaanal mboolem borom aajo yi borom bi subxanahu wa taala yal na ko faj ñi nga xamante ne dañoo tawat yal na yàlla saafara leen. ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe jafe-jafe bu man doon borom bi subxanahu wa taala mën na koo yombal yàlla nañu ko yombalal maa ngi sàkkul ñaan suñu mbokk suñu wëllëree bu baax Boubacar Bari maa ngi koy wax barki démb ci jotaayu yes alunaka bi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo amoon yéene dem màkkatal mukarram ay jarbaatam bëggoon ko yóbbu yàlla dogal ñu jokkoo woon ceeg man ba jotoon na joxe sax seen avance ba mu nekkoon ci wàccaayu wut passeport yàlla dogal mu génn àdduna barki démb génn àdduna gu bette yalna ko yàlla yërëm yal na ko defal tiyaa bay aj rafet nañ jot sax ci loolu ndax suñ borom day fay yéene te yéene jim ci amoon rek day doy sëkk borom bi subxanahu wa taala nangul ko yal na ko nangul te def dee mu nekk am nooflaayam ñu ngi koy jaale ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmmam yépp. rawatina jarbaatam yi nga xam ne ñoo nañu woon kat dañoo am yéene mu dem màkk waaye ci sa loxo lañ ko bëgg a teg waaye borom bi subxanahu wa taala moom mooy dogal mbir nam ko neexee te la yal na ko yërëm ah mu mel ne ñu ngi ci weer woo xam ne weeru yiw la ni ma ko baaxoo waxe weer woo xam ne weeru tiyaaba la rawatina fukki fan yu mujj yi nga xam ne ci lañ nekk. ñu ngi ci jamono joo xam ne jamono yu fajo aajo la jullit bi nag day ñaan borom bi subxanahu wa taala mu fajal ko aajoom waaye waxoon naa la ne noo bëgg yàlla def la ni rek jéem a def noonu sa bopp te def ko ñi nga jàkkaar lool borom bi subxanahu wa taala fekk la ca ku bëgg yàlla jéggal ko nay jéggale ku bëgg yàlla sutural la del suturale ku bëgg yàlla dimbali la del dimbulee. waaw léeg-léeg nit jant boo xam ne day xam ne bu du woon ak sutura adduna tukki wala adduna am tukki waaye borom bi subxanahu wa taala moom mooy aji suturaale ji moo tax mu waxoon ne ab julit nay dimbali mbokkum julitam lu ko jiitu day mel ni jëf awu yiw day taxa am ak texe wafalul xayra laallakum tuflixuun ndigalul borom bila waf alu dee jëf wala jëf leen alxayra aw yiw wépp yiw waaw lu baax bu dee julli lu baax la bu dee koor lu baax la bu dee asaka lu baax la bu dee aj màkka lu baax la nekk ca kaw ci suuf nag lu baax ci jëflante sa digganteeg nit ñi lu baax ci jëflanteeg sa mbokki jullit yi nga xam ne ñooy say bokk ndax ab jullit mbokki jullitam yi ñooy ay mbokkam waaw ñooy say bokk de Abdullah ibnu Omar radiallahu anhuma nee na salaatu wasalaam nee na jullit jullit ay mbokkam ab jullit jullit yi ñooy ay mbokkam al muslimu aqul muslim waaw ay mbokk lañ mooy mbokkam mbokk mooy ñoo war a bokk mbokk mooy bokk luñ bokk ñu ne ñoo bokk ndey am seen soxna soo xam ne moom ngeen bokk wala ñoo bokk baay wala suñ baay yi ñoo bokk kon am na maam bu ngeen bokk bu ngeen koy topp noonu ngeen di bokkee wala bokkuñu yooyu yëpp waaye ñoo bokkub dëkk wala bokkuñu yooyu wala ñoo waaye ñoo bokk fu ñuy liggéeyee wala bokkuñu loolu waaye ñoo bokkub sëriñ wala ñoo bokk parti wala sax léeg-léeg ñu bokkub xarit dem ba bokki bëgg-bëgg ak milieu bu ñuy fréquenté kon dañuy bokk nit mën mënta ñàkk bokk ki nit ñu ne ko nag sa mbokk dëgg dëgg dëgg mooy ab jullit ne yow mbokk moomu nag dañuy bañ nga tooñ ko dañuy bañ nga tooñ ko dañuy bañ nga gàcceel ko waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ca ne bépp jullit boo xam ne taxaw na ci aajoy mbokkam mbokkam moomee di ab jullit suñ borom fajal ko ay aajoom waaw boo taxawee ci yitte nit ba yitte ja faju dana ñëw nga am yitte joo xam ne yàlla dong nga ci yaakaar borom bi subxanahu wa taala fajal la sa yitte tax ñu baax ña buñ daan wut dara mu jaral leen dara nga gis koo xam ne danaan su ma yàlla mayee nangam danaa def nangam dégg nga loolu ba tàyyi danaa woor nangami fan ndax sante ko ko am na ñoo xam ne dañoo danaa gas ay teen boo demee ca ñi ñëwoon démb nga dem ca eh, soxna Haaruna Rasita defe Euh, donc subayda subayda tum ni jaxfar ba mu toogee ñaan doom lu yàgg te suñ boroom mayu ko ko xam nga ne loolu la waxoon dem na ba la tàmbulee Baxdaad ba ba ngay àgg Madinatu Munawwara yoon wi yëpp mu def ko ay teen yoo xam ne ay nit dañ fay jaar bu ñuy aji di ca man di naan ak a wëgg jur ak a jàpp di julli ndax lan mu ne maa ko def ngir jaamoo ko yàlla waaye nisare ko ñaan sama borom mu may ma njaboot ba suñ borom subxanahu wa ta'ala may ko doom nit daan def loolu maanaam sonn ki ngay sonn ci sa aajo yi mbokki jullit mooy tax borom bi subxanahu wa ta'ala fajal la say aajo te moom du ci sonn wa man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyaama ku teggil ab jullit njàqareem ci àdduna suñ borom teggil la. njàqare ca njàqare àllaaxira ya waaw ca tiitaange àllaaxira ya nga xam ne foofu la tiit yam ndax dëgga dul xam fooy mujj dëgga dul xam fooy mujj ndax mbiri borom bi subhaanahu wa taala aku rattaxaayam yëmu ci loolu beneen ñetteelu mbir mi mu ne waman satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaama ku suturaal ab jullit suñ borom suturaal la yowmal xiyaam sutura si yàlla la yowmal mooy mu jéggal la say bàkkaar ba ni nit ñi foogoon ne noonu nga mel borom bi subxanahu wa taala di wane ne noonu nga mel waaw ndax léeg-léeg nit ñi foog ne noon nga mel te meloo noonu yaa gën a xam nit ñi sa bopp waaye borom bi subxanahu wa taala moo la gën a xam sa bopp waaw borom bi subxanahu wa moo la gën a xam sa bopp ni nga gën a xamee nit ñi sa bopp léeg nit ñi dina la wax lu nekkut ci yow waaye xamuñ ko ndax dañ laa umpule am na ci nit ñi. waaye borom bi subxanahu wa taala moom xam na yéene ji xam na lépp xam na lépp mooy aji suturaale ju mag ji yal nañu boole suturaal yal nañu yàlla suturaal fii ci àdduna waaye yal nañu suturaal ëllëg yowmal xiyaam ñu ne amin waaye ku bëgg yàlla suturaal la nag da ngay fii ci àdduna ku bëgg say aajo yomb faju ñi nga tane sa bokki jullit yi del taxaw ci faj seen aajo seen kamtilaayal kàttan ku bëgg a tàqale kooki njàqare ëllëg yowmal xiyaam fexee la tàqale ay jullit fii ci àdduna ak seen njàqare ndax la gis koo xam ne day yaakaar ne jant bi fenk tey du so waaw jant bi fenk du so ndax lan ay jafe-jafe waaw ndax lan ay problème léeg-léeg mu nekk location léeg-léeg mu nekk ordonnance léeg-léeg nekk payum njàng léeg-léeg mu nekk ab dund waaye léeg-léeg nit yendu ci njàqare loo xamante ne jéggi na dayo waaw dimbali ko del dimbali sa mbokkum jullit yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci beneen xadis boo xam ne bii daa wax wa man farraja bee mu ne man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil xiyaama ku teggil ab jullit njàqareem ci njàqare yi fii an muminin fee an muslimin aji gëm fee aji wommat waaye yëpp di delluwaat rek ci ab jullit wa man farraja eh, an muslimin fii man nafasa an muminin waaw be kurbatan eh, min kurabi dunya fii borom bi subxanahu wa taala it waxewaat ko noonu ku teggil ab jullit njàqare ci njàqare adduna yi suñ borom teggil la njàqare adduna ak alaxira yal nañu ko defal. ku yombalal ab jullit lu ko jafe woon suñ boroom yombalal la wa man yassara ala muxsirin yassarahu allahu alayhi fi dunya wal axira waaw ku yombalal ab julit lu ko jafe woon xam nga ni nit am loo xam ne moom la jafe waaye yomb na la yow yow def ko du doon dara ci yow fi mu ne ab jullit bu doon yootu dara rek nga jotali ko te yàlla tax nga am ci tiyaaba nga am ci tiyaaba bu doon kooru fas la ak xiiram nga far xiir gi jotali ko rek suñ borom subhaanahu wa taala mën na cee sukkandiku jéggal la kon asamaan nag ñu nar a xëccoo ñun ñaar circulation bi ba nar a ci àll bi walla ñu fanaan ci te may gi ngay may nit ki mu jàll faf mu doon tiyaaba ci yow xoolal euh, lislaam ni muy mooñe nit te di ko jëmale ci mbaax ko yombalal nit lu ko jafe woon suñ borom yombalal la te bis bu set ngay ñaan nag bëgg say mbir yomb waaw bëgg bëgg am tawféex bëgg li ngay lijjanti lijjantiku bëgg li nga yaakaar nga jot ci yow foofu nga teg sa bët am na koo xam ne fi nga nekk nii la ne siiw la ne taalaa ak fi maanaam moom loo ko compal mu doy te borom bi subxanahu wa taala nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na suñ borom a ki ndimbalul jaam bi li feeg jaam bee ngi dimbali mbokkam wallahu fi awni al abdi maa kaana fi awni aqi li feeg o baa ngi taxaw ci di dimbali mbokkum jullitam suñ boroom subhaanahu wa taala dana ko dimbali waaw dana ko dimbali moo tax léeg-léeg ki ngay dimbali mel ne moom daa jàpp ne dalay nax ndax da def tappalekat moom wala daa jàpp ne danaa gën a yeewu dafoo de yow yàllaa tax ngay def yàllaa tax ngay def fi mu ne bu ko ca defee am nga yàlla bu ko ca defut am nga yàlla waaw am gorek def ko ca nag noppalu noppal la ndax lu Eh, du mujj fu baax du mujj fu baax borom benn ci ndimbalul jaam bi li fi jaam benki ci ndimbalul mbokkam ndax yàlla daa bëgg nit yàlla daa bëgg nit ñu fonk leen xam nga ne yowmal xiyaam yàlla dina wax nit ne ko feebaroon naa ci àdduna seet si woo ma mu ne ko yow borom asamaan ak suuf naka ngay feebare waaw mu sama jaam diw ba mu nekkee sa dëkkandoo feebar boo ko seeti woon fekk ma fa boo ko seeti woon fekk ma fa xiifoon naa wala maroon naa wala ñàkkoon naa te dimbali woo ma nga tiit bay bëgg a dee tàmbulee làmbatu di subhanallah yow mi mu ne waaw sama jaam sàngam de loolu daloon na ko boo ko dimbali woon booba fekk ma fa waaw boo ko dimbali woon fekk ma fa borom bi subxanahu wa taala la noonu la mel noonu la mel kon borom bi dafa bëgg nit moo tax mu ne mi ngi dimbali jaam bi li fekk jaam ngi dimbali mbokkam. xadis bi xadis bu gudd la te lim ëmb ci ay ngëneel dafa bari ndax da caa teg ni ko koo xam ne soobu na aw yoon woo xam ne yoonu sàkku xam-xam la suñ borom dana ko yombalal yoonu aljanna day mel ne tegu na ci yoonu aljanna yoonu sàkku xam-xam tariqan yaltamisu fiihi ilman waaw fii ilman mooy sàkku ji xam-xam xam bi ngay sàkku daal na yàlla tax ak jariñu ak jariñe waaw bu dee xam-xam yëpp xam-xamu alxuraan ci gën bu jàllee xam-xamu fiq ca gën ak xam-xamu xam xadis waaye xam-xam yi ñu soxla ci àdduna yëpp xam-xam la ndax mëneesu koo ñàkk te yëpp mën naa dellu siwaat ci xeeti xam-xam yi ba a wax moo tax mu ne waman salaka waaw waman salaka ku sóobu ci aw yoon sóobu mooy koo xamante ne jël na programme programme boo xam ne mooy programme mu xeeñcu ci ab xam-xam la borom bi teg na ko ci jàppandilal na ko yoonu àjjana sahalallahu lahu bihi tariqan ilal janna suñ borom jàppandilal ko yoonu al aljanna yal nañu ko defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam na mbooloo mu daje ci ab néeg di jàng ci néeg yàlla yi di jàng alquran ak di ko tëralanti ci seen diggante suñ borom day wàccee ci ñoom ak dal waaye day wàccee ci ñoom yërmande malaayika yi ñëw kiiral leen ba noppi di leen tudd nag ci mbooloo moo xam ne moo leen gën xam nga baat bi mu njëkk a tàmbalee te mooy wafaalul xayra laallakum tuflixuun jëf leen lu baax ndax loolu kat day waral ak texe wa axsinu inna allaha yuhibbul muxsinin rafetal leen loolooy rafetalal ni ngay jëfe ndax borom bi subxanahu wa kuy fay aji la waaw borom subxanahu wa taala kuy fay ki nga xam ne ab rafetalkat la suñ borom subxanahu wa koy fay la nga xamante ne moom la nekkoon. di ko jéem a rafetal inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muxsinuun rafetalkat yi ñooy ñi ragal yàlla rafetalkat yi ñooy ñi ragal yàlla ñi nga xam ne bu ñu joxe dañuy joxe ci ñam ci ñam gën a rafet luñ ko suturaal doyut ñi nga xam ne bu ñuy wax kàddu yi gën a rafet la ñuy jëfandikoo xam nga loolu ci liñ war a jàngale bokk kàddu yi gën a rafet kàddu yi gën a nooy kàddu yi gën a jekk la ñuy jëfandikoo ci lépp la jëfandikoo ci lépp mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg nañu bàyyi xel suñu bopp waaye rawatina ci jamono jii nga xam ne ci lañ nekk ci fukki fan yi mujj ci weeru koor di fukki fan yi jëf lu baax di fukki fan yoo xam ne jëf lu baax la waaye jëf ko te yàlla tax jëf ko te tax bu ko kenn gisut kenn waxu ko kenn médiatisé wu ko yàlla moom yëg na ko xam na ko te dana ko wone wa qul amalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun waaw yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal gaa yi ne leen nañ jëf rek nañ def def nañ def tama tax rek waaw li ñuy def naa tax rek jërut jërut bëgg mu feeñ man gis naa ko danaa ko xalset a gis te yow mii nga xamante ne eh, yaa leen jàngal bañ koy def yëg nga ko te jullit yi itam danañ ko gis ëllëg yow mal xiyaam ndax borom bi subxanahu wa taala noonu lay doxee moom sellatig jëf lay xool. te teg jëf ci xol lay nekk daa nekkut ci quantité waaye ci qualité xol lay nekk mooy pas-pas bi nit ki am bi muy joxe nit ñi mën nañ ko bañ a xam waaye borom bi subhaanahu wa xam na ko xam na ko dina ko gis te ko fay inna allaha laa yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila xulubikum wa amalikum waaw suñ borom day subhaanahu wa taala du xool suñu melokaan yi du xoolit alal yi loolu yitteelu ko waaw diw daa njool diw daa gàtt diw daa mën a sañse diw daa civilisé diw star la fii moo fi teg loxo yàlla nee na baax na waaye moom xóodul loolu loolu dong yitteelu ko de neen li ko yitteel mooy xoli jaam ñi ak jëf yi pas-pas yi xol yi bu waxee mooy pas-pas yi liñ fas liñ fas ci suñu xol pas-pas yu baax yi looloo yitteel yàlla pas-pas yi bokkaal yi yitteelu ko pas-pas yi naafeq yi yitteelu ko waaye ak lan ak suñuy jëf jëf nag ji yàlla gërëm mooy jëf ji nga xam ne jaam bi koo jëf roye ko jëf yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne seen xéewal yi ngeen am danaa leen ko laaj danaa leen dajale laaj leen seen jëf yi waaye laaj leen seen xéewal yi alal ji nga am mu tuut mu bari suñ borom dana la laaj sa alal ji foo ko jëlee boo tontoo ba wax fi nga ko jëlee man koo layal day li kat dama koo doon woon wala lii dañ ma ko mayoon wala lii ba may door a tàmbalee liggéey la defe naa natt buñ ma joxoon la ginnaaw ba def naa ci nangam def naa ci nangam def naa ci nangam ba lépp jóge ñu ne kon alal ji dagan na beneen laaj bi ci topp nag mooy alal jooju foo ko dépassé nag waaw alal nag ci loo ko dépassé allahu akbar nga xam ne def ci yoonu yàlla te yàlla tax day noppale day noppal nit ndax dangaa delloo borom bi subhaanahu wa taala lim moom moo tax mu ne fa wa rabbika la nas'alannahum ajmain amma kaanu yaamaluun waaw borom bi mi ngi waat ci boppam jalla jalaaluhu nee na waat naa ne danaa leen laaj danaa leen dajale yéen ñëpp te danaa leen laaj auditer leen ca seen jëf ya la ngeen doon jëf xool la nga xam ne moo ca baax xool la nga xamante ne mooy safaan ba la ca baax ñu fayee ko ko fay kuy jëf-jëf yu baax te mooy aljanna yàlla bu mu ñu ump waaye ka ca eh, dëngate itam ñu fayee ko safaan ba waaw borom bi subxanahu wa taala nee na ëllëg bis boobu may xool jëf ya aw askan amu fa solo waaye la am solo mooy jëf yu baax jëf yu baax askan boo fa am solo alal ji moom du la ci génnee waaye alal ji lay amal njariñ foofu mooy ya nga defoon ci ay sadaxaat fi dunya la nga defoon ci ay yiw ci lu baax loolu mën na laa amal njariñ la nga dépassé woon ci yoonu yàlla ngir sàkku ngërëmam loolu mën na laa amal njariñ waaw fa isaa nufixa fi fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun waaw dañuy dañuy laajante dañuy laajante mbokk yi borom bi subxanahu wa taala joxoñum boobu rëy na lool ca lay fayee nag defkati lu baax yi yal nañ ci bokk ñu ñëw aljanna borom bi ni leen udxulu udxulul jannata bima kuntum taamaluun dugg leen aljanna ci sababu sarax yi ngeen doon sarax sëñ Alaaji Gey waaw dugg leen aljanna ci sababu jëf yu baax yi ngeen doon jëf te yàlla tax nga xam ne du ku leen tagg du ku ko médiatiser du du kenn waaye da ngeen a yëg ne war ngeen a wut ngërëmul seen borom ngeen di ko wut waxoon naa fii ne yonent bi alayhi salaatu nee na dox wut leen lu dox seen diggante sawara donte benn tàndarma la maanaam jël ci la la yàlla jox joxe ko te yàlla tax ñaan borom bi subxanahu wa taala ne lii may joxe daal yàlla maa ngi ñaan mu doon baaraas bu dox sama digganteeg sawara. borom bi subxanahu wa taala dugalal la ko fa dugalal la ko fa yal nañu eh, jàppale dimbali ñu ba dox suñu diggante ak li nga xamante ne mooy sawara yàlla mën na ko yal nañu ko boole defal mbokk yi ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi nekk ci fan yu mujj yi nga xam ne fan yi ngëneel la ndax weeru koor lépp a màgg waaye fan yi nag daa am màggaayu boppam màggaayu boppam ci alxuraanul karim waaye màggaayu boppam ci saraxe saraxe ci weer yépp la baaxoon. ci bis yëpp la baaxoon waaye ci jamono ji la gën a rawati jamono ji jamonoy sarax la waaw dañ koy ful ba noppi yàlla di ciy bég ba noppi jullit yi koy jox di leen di amal njariñ ku ne xam ne ne réew mi gënoon naa jàppandi ci ñenn ñi am na ñum xat ci ñoom ñu metti ci ñoom léeg sax mënuñoo dem ci nit ñi wax leen ko ba dañuy taamu ku ñu xamut jéem cee waxtaan ak moom jamono ju ne la saraxe amoon njariñ waaye jamono ji la saraxe ëppati tiyaaba ci biir sarax boobu amaat ci beneen sarax boo xam ne moom day tax koor gi baax moom moom du saraxub kese-kese ndax day laabal koor gi day laabal koor gi muy li ñuy wax sakaatul fitri maanaam mu dum koor defe naa déglu ngeen ci borom xam-xam yu bari di ngeen ci Oustaz Alioune Sall mu ñëw ci ab diir moo tax taxawuñ ci defal ko waxtaanu boppam defal ko waxtaanu boppam ala kulli xaal wax nañ ne bu dee ci xaalis la mën naa dem ba huit cent jàpp huit cent soixante quinze ci ni ko boroom xam-xam yi mujj a tënke boo ko arrondiree def mille wala nga def lu ko ëpp ba tey dagan na njariñam nag mooy jëlee ko ci ñi ñi am jox ko ñi nga xam ne dañoo ñàkk rawatina ci bisu it bi ba nga xam ne dana leen mën a fekk àq jooju ñoom de daa bokk ci seen àq ñu jot ci nga xamante ne bis boobu dana dox seen digganteeg ñàkk gi dana dox seen diggante jafe-jafe yi bañ Eh, maanaam rëyaayu feet geeg neexe itam ni nga xam ne ñi ñàkk maanaam ñi am noonu lañ ko yëgee moo tax ko mën a génn rek waay na góorgóorlu ba génnee ko te génneel ko ñiñ ko war a génneel ñëpp te fexe ba joxe ko te jox ko ñi ko yelloo waaw yal nañu yàlla nangul bu boobaa danañ am tiyaaba ju rëy am na koo xam ne sax ne bu doonul bu doonul woon ab jullit dimbali nit rek maanaam eh, social boobu rek nga yëg ne ngi dundal nit. koo xam ne daa doon ne làcc waaye la ko jox ba mu ca ndogoo ba noppi ma ngay xàqataay tiyaaba gi ci nekk kenn xamul num toll ndax dundal mbirum yàlla la ku ko ca fekk mu gërëm la yal nañu yàlla boole nangul suñu koor yal na yàlla jàppandilal ñu suñuy muddi koor waaye jàppandilal ñu suñuy julli it waaye jéggal ñu suñuy bàkkaar te jéggal leen dimbali ñu bañ mën a rafetal suñuy diggante ni nga xam ne noonu la ko borom bi subxanahu wa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 wa rahmatullahi taala wa barakaatu.